sunu kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ñu jaaree ñu jubaay te te kenn ku nekk xam naa ni boo sa ñëw fi mu ne nii sa jëmm teew fii sama fi baal ndax xam cofee boo am si man xam naa ko bu baax a baax baal waaye ba nga ni loolu mënu la am ci saa yu kenn mottali nañ ko bu baax a baax ndax kenn ku nekk jàpp nga sa leer yemal ko def ca la ca war jox ko la ca war ñu ñëw fekk si ñoom fii ci parti bii ñu ñëw fekk si ñoom ñu bokk si yenn démb bokk si fanaan biir noo ngi xëy di ñu tàggoo ko doole man maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp sama kilifa yëpp maa ngi leen di sant ñi nga xam te maa ngi féete ak man ki paaru seex la kenn ku nekk na ma jàppee gis naa baax a baax baax na yéen doon leen ñaanal sama kenn kattan yéen ñaanal mu doon ak yokk ci yokk sama xol sedd na wuy jaa ngeen jëf sant leen baax a baax sant leen baax a baax waaye maa ngi ngi sant maa ngi sant bu baax a baax a baax baax ñi nga xam dañoo bokk mais dañoo ñëpp dañu fanaan ku ne ba nga si te ñëw ñu ñëw si si yàlla ñoom ñëpp kenn ku ne gis naa maa ngi sant bu baax a baax moom war ñun ñëpp ndax bis boobu bisu njëriñ rek la ndax bisu seen sëriñ la ñu topp ak seen la mu wàcc ci dee bàyyi ba wàcc ci fekk ko mu baax boobu bis boobu bis la boo xam ne war na cee war a am njort waaw war na cee mën a am njort war na cee mën a investir som ndax xam nga ni lu seey mu ko ci kër at waaw ñoom nga def jàkka woo dina furu dina fi bu soobee yàlla maa ngi sant ñëpp maa ngi leen di bay raw ngay ñoom ñëpp maa ngi sant sant daal di fulku yi sant daal di